أحوال البطلان sab'a asara xaala di set mbir yi nga xam ni soo ko defee sa julli dafay yàqu te lax der yu indi ko am na yeneen yoo xam ni nag lax der yu indiwu ko te dana ci ñëw ci kanam yooye nag xaw naa bare yi nga xamante ni si laxdar yi indiwu ko war na dem ci ñeent fukk xaala yoo xam ni benn boo ci def sa julli day yàqu yi nga xam ni di set yi nga xam ni ne moom la laxdar yi indi nag nga xam ni boo ko defee si julli day yàqu waaye mu mën na fee ko fàtte sujudal qabliya sujud boo xam ne koc xable xataa sallam bu mu man sujudu xable salam nga fàtte ba sëlmal sajada ne ko inkaana xariban su fekkee dafa jóge ne ko sujud wa in taala su yàggee nag aw xaraja mu génn mi la masjid ci jàkk ja bàcca dal yàqu sujud ba wa tabtulu dana yàqu asalaatu julli ga maahu ànd ak sujud ba waaye nag si charte in kaana mat na ala salaat sunna ci ñetti sunna bu fekkee mat na ñetti sunna aw aksara walla mu ëpp min ci ñetti sunna benn mat ñetti sunna wala mu ëpp ko wa illaa su ko matul nag fala tabtulu julli gu du yàqu kon su jootu xabla salaam boo ko fàttee ba sëlmal su yàggee mbaa ngi génn jàkk julli day yàqu waaye nag ci sartu mat ñetti sulle ndax nga bàyyi allahu akbar ñetti yoon la nga bàyyi sami allahu liman hamidoo ñetti yoon wala boog lu demee ni ki taayi moom xam nga ñetti toogaay bi sunna la baatu taayi sunna la jàng bi ngay jàng sunna la lu demee ni ki eh, saar saar bi sunna la taxawaay bi sunna la yalu bi wala biral bi sunna la waxu ba ko bàyyi ñetti sunna nga bàyyi ñaareel bi muy deuxième bi wa man waxa wa ku gàkk fil qiraat jàng ga walla mu yaftax te gàggantewu alayhi ci mu ahadun kenn ku gàkk te kenn gàggantewu ko nga jàng bu mujj nga taxaw mënatoo dem taraka na bàyyi tilkal aayata boobule aaya nga xam ni moom la gàkk waxara mu jàng aayatan baadaha aaya ba nekk ci gannaaw mu jàng ko aaya tam ma aaya ba nga xam waxara ma aaya ba nga xam baadaa nekk na ci gannaaw aaya boobu fin taazar bu ngàntaloo ali bu fekkente ni nag mënu ko jàng mënul jàng aaya ba ne ci gannaawam nag rakaan rukon wala njur bu mu xool nag mosxaab bay kaamil bay ni yeddi ci kanamam ilaan yàkkoon dara bu fi faatihati fala budd mën a ñàkk min kamaaliha ci mottali ko bi mu sabin ci kaamil aw xayrihi wala dul kaamil bu dee fatiha moom faw danga koy mottali kaamil danga koy mottali doonte lii danga jël kaamil bi di ci xool wala lu dul kaamil xay xëy na li dama ni téléphone tey in tara ku bàyyi min ci aaya tan benn aaya nag la bàyyi ci fatiha sajada na sujud qabla salaam min kaan bu nekk aksara nag batatu yàqu na salaat su fekkee faatiha da nga ci bàyyi lu ëpp benn aaya rek kon julli ga yàqu su fekkee benn aaya rek nga ci bàyyi kon da ngay sujjóot xabla salaam te sa julli baax ñetteel ba mooy wa man ku sikki sàkka xaalu su shàkk ni ci sikki sàkk la la julli gi di yàqu wa man shàkk fi salaami sallaman salama in kaana qariban wala sujjóotu alayhi sujjóotu ko war nag booy sikki sàkk man sëlmal naa wala sëlmu la bu boobaa nee na da ngay dal sëlmal rek dara waru ci in taala bu yàggee nag batata yàqu na salaatu julleem bu yàggee nag kon julli day yàqu quatrième bi muy rabien bi wa man sallama ku ngi werante sama julli mat na wala matul julli kenn du ko sëlmal te fekk yaa ngi ci sikki sàkk benn nga mottali beneen walla nga laaj ñi nga àndal ñi topp sa gannaaw su matee nga sëlmal bu matul nga bañ a sëlmal wamal xamis bi raabi cinquième bi wamal taxatu ku geef salaati saaxeente aji jamuj fala sa addiet dara ali di ko war wa inta amadu bu ko tayee nag foofu makruhun geesu bu deen yaa tay geesu sib nañ ko soo ko tayul dara waru ci waaye nag mooy geesu goo xam ni loos wi moo geesu waaye nag ini tadbara alqibla su fekkee jëmm ji ci boppam nag moo geesu nag xataat asalaa kon day daggu julli gi julli ga wératul da dagg juróom benneel bi muy sixième bi fa man jaa atu ku dikke ne ko xayatun jiit aw aqarwun wala jaan fa xatalaha mu rey ko fala shay a déet dara alayhi di ko war ilaan yatadbira lu dul mu dëddu alqibla lu dul mu wan gannaaw alqibla fa innahu boobaa yàqtoo dagg salaatu ko julleem boobaa julli ga day yàqu kon booy julli dara ñëw sa kanam luy lori nga doon ko rey foofu wow gannaaw xibla kon julli ga yàqu na danga koy dagg liqaamaat kabaraat juróom-ñaareel ba wa man karara ku baamtu alfaatiha te saxinti ak jëmuj sajada baada salaam mu sujjoot baada salaam wa in kaana bu nekkee aamidan di ko tey nag foofa fa zaahir lu feeñ huwa moom albutaan mooy yàqu julli ga faatiha ku ko jàng ñaari yoon ci benn rakka te yaa ko tey bu booba boo ko tey li nga sujjoot baada salaam su fekkente ni yaa ko tey nag julli ga saamin saamin bi mu huitième bi wa man daxika kurée fi salaati julli moom battalat yàqum salaatu julleem kooku moom amul juum ñàkk juum sawaun way jamoo la kaane saahin di jamuj aw amil wala aji ko waaye nag sax nag wala yadxu kurée fi salaati illa xaafilun ku du aji sàggan mutilaan ko sàggante fo rek mooy rée ci julli waaye xam nga ni bu gaynde taxawoon sa kanam doo rée kon daa joxe wegeel ki bind gaynde nag tey moom nga taxaw ci kanamam nag di ko jaamu kon ku sàggan rek mooy réccu julli taasiya bi wa man nafaqa ëf fi salaati saahiyan sajada ba'da salaam bu fekkee da nga doon ëf ba araf génn da ngay salaam in kaana amidan bu fekkee yaa ko tey nag batalat yàqu na salaatuhu julleem kon yooyu mooy sikki sàkk mu ñëw nag ci mu baalaxa bu fekkente ni da nga ëppal nag moom tamit mu ni waman zaada fi salaati mislaha da doon julli dolli ci julli ga lu toll ni julli ga boobu julli ga yàqu na batalat julli ga yàqu na aman na isa ku gëmmeetu fi salaati solaa sujudi alayhi bu ci dujootu waru ko wayn sa xolool bu diisoon nag mu xu nelaw aada asalaata wal wuddoo bu fekkente ni nag yaa ngi julli di nelaw nelaw yu diis mooy boo xam ni nit ki man na fi aw dem awaat fi dellu ci te doo ko yëg bu fekkente ni da nga nelaw ci julli gi nag ba nelaw ya diis su boobaa nag julli ga ak njàppale yépp yàqu julli tamit su fekkeen tisbaar la nga dolli ci yeneen ñeenti raka wala timis nga dolli ci ñetti raka wala suba nga dolli ci ñaar raka loolu mooy dolli ci julli lu toll na julli ga boobaa nag julli googu day yàqu saani asar waman jaatu ku dikk xayatun jiin aw aqarwun wala xayatun jaan aw aqar wala jiit fa qatalaha mu rey ko fala shay a déet dara alayhi di ko war dara warul ci moom illa an yatuula lu dul mu yàgg nag fi'luhu jëfam fële dafa ni woon lu dul mu wan gannaaw xibla kon day daggu julli ga fii nag jëf ci mooy yàgg ilaan yàqul lu mu yàgg fi'lu fa innahu yaqta'u day dagg salaatahu julleem yaqta'u dafay dagg salaatahu julleem bu fekkente ni nag dafay yàgg ba yàgg wooba nag julli ko day yàqu day dagg julli gi kabar julliwaat saalis asar mooy wa man daxi kurée saa indi aj jamuñ nag fi salaati batal yàqu na salaatuhu julleem wa illaa walaa yadxaku fi salaati yi illaa ku julli ree te fekk sàggante moo tax fële aha dafa ni woon moom ma tey fi salaati batal salaatu sawaan kaana saahiyan moo am dafa jamuj aw amidan mu jamuj wala jamujul fii nag wa ma tey fi salaati batal salaatuhu wala yedde hokkude fi salaatiji illa xaafir ndari aji sàkkal munta la am ko aji fo ku sàgganta fo rek mooy ree ci julli fukkeel ba ak ñeent mooy wa man fartaxa ku gàgganti taxawal mënatul dem gàgganti mooy nga waxal ka la ca topp wa man fataha ko gàggante wala ku ubbee ala xayri imaamihi imam budul ilimaanam ñu ngi julli fii kii di julli fële imam bi gat sa imam nga gaganti ko boba batari yàqu na salaatu hoo julli booba julli gi day yaq wala yeftu du gagan ala imamihi nak ila an yantazira nda mu muñandi al fatah gaganti ga nak lu dul nak gaganti ko waaye du imam du gat rek aw yeftu ma yaqal mana maana maana ba ngay xaar tuuti ba xam wala boog ma yàqu bok nga sokay gaganti gàggante imam du ki rek nga daldi jëkkanteeg moom di ko gàggante fekk gàggagul loolu tamit du teggin xaamis asar mooy wal masbuuxu ku ñu raw intarak bu bàyyee ma al imaami aqale lu gën niiw mi rakaatin ci benn raka ku ñu raw su fekkee dafa bàyyi lu gën a néew raka lu matul raka in adraka ma al imaam ndem jot na ànd ak imaam lu gën a néew raka jot ànd nak ilimaan wala li mu ànd ak moom jotul matraka man maanaam imaam sëgg na ba siggi mu soogee ànd ak moom kooku falaaj ju dul sujjoot ma am ànd ak moom laa qabaliyan du jaagee ni qabla salaam wala baadiyan du jaagee ni koj baande salaam fa in sajjada bu sujjootee maam battat yàqu na salatu jëm bu sujjootee ànd ak moom nag julli ga day yàqu kon bu fekkee dañ la raw jotoo am ci ilimaan lu matraka kon buy sujjoot bul sujjoot ànd ak moom wal saalis saalis asara ba nag mooy fukkeel ba juróom benn wal matbuuqu ku ñu raw in adraka bu jotee rakatan kaamilatan ki ñu raw nag bu fekkente ni jot na am raka bu mat sëkk aw aksara wala mu am lu ëpp raka sajada na si jot maahu ànd ak imaam alqabliya koj qabla salaam wa aqar mu yéexe albaadiya kooj ba'da salaam bu dee qabla salaam day sujjóot ànd ak ilimaan ndéem am na ci moom lu mat rakka bu fekkee ba'da salaam la nag doo ànd ak ilimaam yow bi imaam sëlmalee da jóg mottali boo mottali ba pare sujjóot ba'da salaam wa aqra ba'diya xataa yuttima ba mu matal salaatahu julleem fa yasjudu sujjóot nag ba'da salaam yi gannaaw sëlmalam fa in sajada ndéem sujjóot nag man imaam yi aamidan di aji tay ko nag bu fekkente ni nag baada salaam bii bi mu koy sujjóot ànd ak ilimaan moo ko tey batalat yàqun salaatoo julleem wa in kaana saahim te fekkee dafa jamuñ nag sajjada na sujjóot baada salaam bu fekkee dafa jamuñ nag kon day sujjóot baada salaam kon imam bu fekkente ni jot nga ci moom lu mat rakkaa buy sujjóot salam salaam ngay ànd ak moom buy sujjóot baada salaam da ngay continuer yow ba matal soogay sujjóot sa sujjóot su fekkente ne da nga ànd ak moom ci baada salaam ba nag te fekk tayoo ko te fekk da nga jamuj da boo fekkente ni yaaka tey nag boobaa nag sa julli day yàqu saabi asar bi nag muy fukkeel bi ak juróom-ñaar wa isa qaama fu su taxawee al imaamu ilaa qaamis jëm ci juróomeeli raka imaam dafa taxaw jëm ci juróomeeli raka tabi na ko topp man te yàq na ko wóolu muuji baaxaa la ko waral ki xam li tax ilimaan dem ci juróomi la rakka naka topp a shakk lu mu sikki sàkk fii ca la ko waral wa jalasa na toog man ka yàq na kam wóolu nag ziyaada ak dolleem ko wóolu ni imaam dafa dolli kook day toog fi in jalasa toogeel awwalu ku njëkk ki te mooy ki wóor la ko waral wala mu sikki sàkk wa qaama walla waaw waaw googu maanaaw aw wala mu taxaw ak saani ko ñaareel ki nag ki ñaareel ki mooy aha waja mënta yàq na ziyaarataha ki nga xamante ni si wóor na ki imam dafa dolli ba pare muy jógaat taxaw nag ñaari at yi ku ci def benn nag batal yàq na salaatu koy jullee kon bu ñu tënk rek fukki mbir yéeg juróom-ñaar kon bu ci jëkk mooy ku sa fàtte sujjóotu qabla salaam ba sëlmal su jógee na su jógee na nga ko sujjóot su yàggee walla nga génn ci jàkk ji kon sujjóot ba day yàqu julli ko yàqu ñaareel ba ku gàkk ci sa jàng te kenn gàggantil wa dangay bàyyi aaya boobu jàng aaya ba ca gannaaw su fekkente ni mënuloo ko nag nga rukon ndem jot nga am lu mat aaya dooxool xool kaamil nag doo xool leneen lu dul mu ne ci faatiha boo dee faatiha moom force nga jël kaamil mottali ko wala sa téléphone wala loo ko mën a mottalee su fekkente ni nag faatiha bi benn aaya nga ci bàyyi kon mën nga sujjóot xabla salaam mu baax su ëppee benn aaya nag njulli gi day ba ki sikki sàkk ci sëlmal nee na na sëlmal bu jegee te sujjóot du ko war bu yàggee nag julli gi day yàqu ñeenteel ba ku sikki sàkka ndax julleem mat na wala matul musel sëlmal julli ga yàqu na juróomeel ba ku geesu ci julli jamuj nee na dara warul ci moom bu ko tàyyee nag wala mu dëdd xibla nag wan wan gannaaw xibla kon day dagg julli ga julli ga yàqoon juróom benneel ba ku dul julli mujj nga gis ji jaan ci sa kanam wala jiit nee na nga rey ko nee dara nekku ci dul nga wan gannaaw xibla bu boobaa nag da ngay dëgg julli ga commencé waat juróom-ñaareel ba ku baamu faatiha jàng faatiha ñaari yoon te fekk da nga jamuj nee na na nga sujjóot baax de su fekkente ni yaaka tey nag li feeñ mooy julli ga day yàqu zahir toujours nag mooy masala ibnu rusd juróom-ñetteel ba ku ree ci julli neena si julli yàqu na moo xam da nga jamuj wala yaaka tey nee na nag julli nag ku sàggan tey fo rek mooy ree ci julleem juróom-ñeenteel ba ku ëf ci julleem fekk nga jamuñ nag nee na nga sujjoot ba ànd salaam ëf ba araf génn bu fekkente ni yaaka tey nag julli gi day yàqu fukkeel ba ku dolli ci julli lu toll na julli ga te waar nga dolli ci ñeenti raaka wala suba ñaar wala eh, timis yeneen ñett mu juróom benn raaka julli ga yàqu na ku kelbaak benn ku gëmeenti ku julli nee na sujjadu waru ko soo nelawe julli nag ba nelawit gis nag dangay baamu julli ga jaamu baamu wat njàpp na ku kelbaak ñaar ku doon julli mu ji jaat di jaan ñëw ko wala jiit mu rey ko nag nee na sujjadu waru ko loolu nag jëf ja yàgg kon day dagg julli ga fukkeel ba ak ñett kuree ci julli nag nee na jullem yàqu na te nee na nag ku sàggan tey fo rek mooy dee ci ko fukkeel baag ñeent ku gàggante ilimaan bu doo sa imaam nag neen sa julli yàqu na waaye neen nag booy gàggante imaan nag na nga xaar ba mu gag waaye nag doo tëb tëb rek daal di koy gàggante wala maanaa ba yàqu ku ñu raw nag fukkeel ba juróom bu fekkee dañ la raw ci julli te amoo ci ilimaan lu mat rakkaa nee na doo sujjóot ànd ak moom qabla salaam doo sujjóot ànd ak moom baada salaam te boo sujjóotee ànd ak moom nag xabla salaam nee na sa julli yàqu na fukkeel ba juróom benn nee na ku ñu raw bu jotee lu mat ràkka wala lu ëpp ràkka bu ilimaam di sujjóot nee na na nga sujjóot ànd ak ilimaan moo xam fekk nga jamuj woo wala fekki woo ko bu dee ba'da salaam nag da xaar ba imaam sëlmal dangay xaar yow ba nga sëlmal nga soog a sujjóot ba'da salaam ba imaam sëlmalee da ngay jóg mottali ba sa julli mat nga sëlmal soog a sujjóot ba'da salaam bi nee na nag bu fekkee da nga sujjóot ànd ak ilimaan nag te fekk yaaka tey julli ga yàqu na boo jamu jee nag da ngay sujjóot ba'da salaam fukkeel ba ak juróom-ñaar nee na imaam bu taxawee jëm juróomeelu rakaa ka xam ko ka am kuulite la ko waral nee na da koy topp jóg taxaw ànd ak moom wala mu sikki sàkk ndax ñeent la am wala juróom ka wóoru ne da ko dolli nag kooku day toog moom du taxaw bu fekkente ni ku jëkk gi dafa jóg ta dafa dafa te tabi ma mën te yàqan moo ji ka xam la ko waral mu war ko topp mu bañ ko topp wala boog ku ñaareel ki waroon na toog man te yàq na ziyaadata wóor na ko dafa dool mu waroon toog jóg taxaw kon ñoom ñaar ku ci def lii rek neen si julli yàqu